يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سماته محمد mbokku jullit yi mbokku talibe yi asalaamu aleykum wa ci ndigalu sëriñ Tuuba sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke xalif général des mourides yal na fi yàgg lool ak wér ci kilifteefu sëriñ Abo Baraka Mbàkke xalifa sëriñ Fàlilu Mbàkke Xaadimu Rasuul ak mboolem jabootuk sëriñ Fàlilu Mbàkke sëriñ Cheikh Ahmadou Mbàkke xalifa sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke Xaadimu Rasuul ak mboolem jabootuk sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke sëriñ Busobe Buso xalifa sëriñ Busobe ak mboolem jabootuk sëriñ Busobe ak sëriñ Sa Buso sëriñ Alaaji Fàlilu Buso xalifa sëriñ Afiya Buso ak mboolem jabootuk sëriñ Afiya Buso ñoo am mbégte daal di woote màggal gi nu baaxoo defal Serigne Afia Bousso moom Serigne Bousso be ca Touba Daaru Manaan ca barabu Serigne Afia Bousso ñu di ko amal altine ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru koor gi dëppoog altine fukki fan ak juróom ñaar ci weeru avril 2023 di ci rendre hommage Serigne Mamor Mbacke Falilou ak Serigne Modou Mamoun Niang conférence fondation Jalibatul Marahib bi lëkkale surtout Serigne Afia Bousso yi ñu koy amal bu ñu ne ëllëg la maggal gi muy dimanche fukki fan ak juróom benn ci weeru avril 2023 ren ñu tuddee kilifteefu xalifaam Serigne Ahmadou Bousso ak mbooleem njabootug Serigne Cheikh Bousso dem ba nuy waxtaane di njàngaleem Serigne Touba ni mu daan yare mag ñi ci wàllu liggéey conférencier ba Serigne Gana Messere Maxtaar ñu di ko yëgal njabootug Serigne Touba gépp mbooleem sëtu Serigne Bousso be yi sëtu Cheikhu Serigne Touba yi ak mbooleem taalibe yi programme bi bu nu xëyee ci bésu màggal gi di altine fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril 2023 ñu mottali njàngum alxuraan mi njàngum xasir mi ba dog jot ñu berndeel mbooloo mi buñ ca noppee ànd ziyaara Serigne bi cérémonie officielle bi ci guddi jàngkat bay fanaane guddi gi ba bët set Serigne Khadim Gueye ñu ko yëgal njabootuk Serigne Touba gépp Mbàkke Mbusoobe mboolem ñi ñu bokkal Mam Maram di ci woo Cheikh Serigne Touba yi mboolem këru diine yi mboolem taalibe yi ci biir réew mi ak bitim réew soppe yi xarit yi ak wóllëre yi di ko yëgal njiitu réew mi son excellence Macky premier ministre Amadou Ba ministre de l'intérieur Félix Antoine Diome ministre Gallo Ba maire bu Mbàkke gouverneur région bu Diourbel préfet bu Mbàkke Mbacke Bara Dolly honorable député Matar Diop honorable député Serigne Cheikh Thioro Mbacke ak honorable député Abdou Mbacke Ndaw bés bangoog màggal annuel Serigne Afia Bousso altine ñaar fukki fan ak juróom ci weeru koor gi dëppoog altine fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril 2023 ca Touba Daaru Mannaan ca barabu Serigne Afia Bousso ñu ñaan képp ku ko teewee sunu borom faj say aajo ci barke Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul ci darajay Serigne Afia Bousso asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala